mbokki Sénégal gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi sant sénégalais yëpp yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew di ñaan yàlla élection yi ñu jëm yàlla yóbbu ñu ci jàmm mu am ci jàmm jeex ci jàmm rawatina ci jamono jii nga xam ne moom lañ koy defee mu di weeru koor waaye muy jamono joo xam ne itam suñu mbokk yi nga xam ne ñuy ay catholique lañu ñoo ngi karem xam ngeen mbokk yi ni sama taxawaay fii jàkkaarloog yéen tey firnde la ci kàttanu suñu borom ak dooley ndogalam ci suñu dund ak suñu taxawaay ndax bu fekkoon yéene ji ma amoon moom la yàlla dogal fii ma taxaw sama mbokk mi sama xarit Ousmane sonk moo fi taxaw ndax ay weer ci ginnaaw waxoon naa sama yéene ci loolu su ma sañoon itam fii sama doomu ndey sama frère Basirou Diomaye dina fi taxaw waaye ndokk ñuy sant yàlla bi nga xamee ne am na ñu ñëw wax wax ci kàddoom ñuy yaakaar ni lu lootul yàgg dina génn ñëw ànd ak ñun ñu continuer ci lii ñu dëgmal waaye loolu lépp boo gisee mënula woon a nekk mooy da ngeen di seet réew mi am na ay jaar-jaar yu mu am temps yi ci ginnaaw muy lu ñëpp naqarlu lu ñëpp mettitlu lu ñëpp ñaawlu ñuy xalaat ñi ci ñàkk seeni bakkan ñuy xalaat ñi nga xam ne ñi loru nañ ci ñi am gaañu gaañu ñu ñaan yàlla mu kàttanal leen yàlla fëgg seen bopp mbokk yi bu ñu taxawee fii nag tey di wax ak yéen dafa am yéene yu ñu am ci réew mi mooy yooyu fi jaar yépp dootu fi amati dañu bëgg injustice bi fi amoon jeex fi jaay doole bi amoon ci réew mi jeex fi yorin wu bon yi ñu yoroon ci alalu askan wi jeex fi dañu bëggoon réew mi bu ñu ci yàlla dimbalee mu nekk réew moo xam ne dina changer définitivement boo xam ne bii dinañu fexe ba ñi ko war a yor mu di góor ak jigéen danañ leen jox réew mi jox leen kàttan pour ñu yóbbu ko fi mu war a nekk réew mi kat sa euh, mbokk yi ñu ciy sant yàlla ndaxte réew mu baax la réew mu bëgg lu baax la réew mu xam ni suñuy maam ak suñuy mag ñi fi nekkoon defoon lu baax bëggoon lu baax ñoo ñooñu ñooñu xàllal yoon ba ñu nit ñu war a jaar ci yoon woowu loolu nag la ñu bëgg a ci fan yii ñuy jëm mu di campagne électorale bi nga xam ne dinañu ñëw fépp fu nga nekk waxtaan ak yéen ci projet bii nga xam ni moom la ñu bokk projet bi moo xam ne ñu ngi koy tënk ci lu ñuy wax patriotisme mooy bëgg sa réew ñoo ngi koy tënk ci li ñuy wax souverainisme mooy moom sa réew moom sa bopp ñoo ngi koy tënk ci li ñuy wax panafricanisme mooy li nga xam ne lëkkale Afrique kattanal Afrique ba Afrique am doole ci àddina bi waaye ñu ngi koy tënk ci li ñuy wax itam refondation maanaam defaraat institution yi defaraat réew mi jagal ko ba sénégalais bu nekk nga gis ci sa bopp li ñëpp moom sénégalais yëpp bokk ko képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi say ax ak say yeleef ñu delloo la ko ba itam nag lu ñuy décidé ti sénégalais yi dugal ci seen kàddu kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaanal réew mi jàmm di leen wax yàlla ñu dugg ci campagne bi ak jàmm te projet bii ñu yëkkati te ñu nekk ci ànd ak suñu mbokk yi euh, Diomaye président ak Yewwi Askan Wi ak ñëpp ñu ñu àndal yàlla yóbbu ñu ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah